al tirage bi gën ci Sénégal ak bi bon ci Sénégal ba di ñu wax ne bu neexee ba neex mën nañu am Qatar Serbie Costa Rica wala Nouvelle-Zélande bu compliqué ba compliqué nag mën nañoo laal France Brésil Espagne Argentine wala Allemagne stade yéenekaay di laaj ci mu njëkk ndax Sénégal France gi woon 2002 duñu ko amaat ci coupe du monde bu ren bi lii xaar gayndee Sénégal yi ci tirage au sort bi stade yéenekaay nee nañu ñaar la benn bi mooy France Allemagne Sénégal ak Canada ñaareel bi di Qatar États-Unis Sénégal ak Équateur tirage au sort bu nekk dinañu ci gis li ñu naan groupe de la mort tax record yéen xëy di ñu wax groupe de la mort bi ci tirage au sort coupe du monde bi lan la nar niru Sénégal record nee nañu ñoo nga ca pot ba waa France nag bu ñu amee li leen gënal bëgguñu daje ak gaynde Sénégal yi Vox Populi bindal ñu ci xëta mu njëkk ne gaynde yi nooyetuñu li ñëpp xaar mooy nan la yëfi di tëdd tey ji ci ngoon ginnaaw tirage au sort bi ñu war a def ca Qatar Qatar googee ko tudd ci réew mi xel dem ci Karim Wade mi fa tagatim bu yàgg ba léegi moom Karim moom la l'observateur xëy mu njëkk ba dañuy wax ne diggam ak Macky ni mu xajame woon mi ngi wàññeeko ndax kii di Karim Wade ba muy félicité yi ci seen qualification ci mondial bi dégg nañu ko muy wax bay sant ka gërëm président Macky Sall ci statu jam ñaajo bi mu tuddee baayam Abdoulaye Wade Momar Thiam dib docteur ci wàllu communication politique ak professeur Moussa Diaw bu université Gaston Berger bu Ndar ñoo ngi wax ci l'observateur ni ñu jàngatee situation bi ñoom ñaari kàngam yooyee di gëstoo ko xeltu ci wàllu politique kenn ci ñoom di professeur Moussa Diaw nee na wàllu observateur yëf yi mën naa doon ab stratégie politique ndax bu Macky Sall bàyyee ba ñu jege élection législative yi mu gi te lu mën a Boubacar Camara njiital parti construction et solidarité jéngu tabax nañu ci l'observateur ñi doon soofantal Macky ak di ko xeeb ñépp rëccu ko ndax Macky moo di koo xam ne bu nàkkeeb kurpañ foog mu dal te fu mu ko bëgg a teg la koy dóor juróom benn fan ci weeru mai nañu bés la bu am solo ci parrainage gi ci élection législative yi ndax ci bés boobee ci la tàmbali déposé liste parrainage yi dimanche juróom-ñetti fan ci weeru koy dakkal européenne di wax ci biir la Sénégal ne parrainage gi lu démocratie nangu la ci jamono jooju coalition bunt bi ñoom li ñu bëgg moo di Sénégal jëfee décision bi nga xam ne cour de justice bu CEDEAO wax na ko ci mbirum parrainage bi ci réew mi réew mi quotidien xëy ñu indil leneen li cour de justice bu CEDEAO bi wax ci arrêté Ousmane Ngom bi tere ko manifester biir centre-ville nee na na Sénégal arrêté arrêté bu Ousmane Ngom bi Sud Quotidien nañu CEDEAO Macky Sall jëlee fi arrêté bu Ousmane Ngom bi ba defal ko ci rapport Mariama maane ma nga ca kaso ba libération moo ñu ko wax ba di ñu fàttali ne Mariama Mané mooy ndaw si dëkk ca ñooro te jëloon ñaari doomi wu jëm yeewoon leen doon leen maltraité filmé woon yëfi yónnee ko yaay xale yi moom Mariama Mané am ñaar fukkeet ak ñaar tribunalub Kaolack mandat dépp na ko Mariama nee na yaayu xale yi da ko doon menacé moo taxoon mu teg mise en scène bu ni mel ngir bëggoon koo naqaral li naqari dëgg mi ngi ci Vox Populi mu di benn artiste bu jigéen bu toll ci ñaar fukkeet ak benn yéenekaay bi nee nañu keroog bi Sénégal gagné Coupe d'Afrique ba nit ñi génnoon doon manifester ak doon feetu moom artiste bu jigéen bi juróom-ñaari waxambaane ñoo ko ko ca Tëngéej yegg ci kawam